waaw bu ñu sant yàlla dañ fi ñëw tey ànd ak ay membres du bureau municipal les membres du conseil municipal ñoo tamit ànd ak administration hôpital euh, Abass Ndao euh, ñëw visiter euh, chantier wu projet bu ñuy wooyee projet pôle mère enfant projet boobu nag am na sax ñu koy wooyee tey projet parent enfant parce que dañ jàpp nii ni que yaay dafa ci nar dugal loxoom wante tamit papa yi tamit dañ ci nar dugal seen loxo. donc euh, peut-être disons juróom benn wala juróom-ñaari weer ci ginnaaw ñëwoon naa fii pour teg la pose de la première pierre donc euh, ñëw nañ fi tey constaté nañu avancement aux travaux yi euh, ñu ñaax tamit entreprise bi mu accélérer liggéey gi parce que nu ngeen ko xamee unité pôle maire enfant su ma juumulee ginnaaw principal ak Fann ci Albert Royer a euh, Abass Ndao rek euh, am tey euh, unité bu mel noonu te su ci yàlla àndee incha allah suñu paree projet bi unité wu Abass Ndao unité ci pôle bi mère enfant booy nekk unité bu gën a mag biir Sénégal donc ville de Dakar projet bi dugal na ci un peu moins de trois cent millions suñ ci xoolee projet bi ak équipement yu ñu fi nar a dugal on sera presque à un milliard et demi parce que déjà pour mën a équiper euh, euh, unité bi mooy pôle mère enfant pour mën ko équiper on tourne à peu près autour d'un peu moins d'un milliard moom bëggoon tamit yokk ci euh, ci at bi ni 2023 lancé nañ marché ba pare commande bi est déjà faite hôpital Abass Ndao dinañ ko équipe ak benn IRM de dernière génération te IRM boobu mairie de Dakar mu ngi koy jënd ci un milliard trois cent millions donc euh, ñuy talal nag suñu loxo euh, état du Sénégal parce que lu kenn mën ñaare ko ñaare ko ko dàq donc euh, ñu ànd ci ak état central par le biais du ministère de la santé mën a góorgóorlu ba mën a relever le plateau sanitaire fii biir Dakar parce que hôpitaux yi wax dëgg yàlla saay bu ñuy dugg ci hôpitaux yi fii Sénégal particulièrement Dakar daanaka day am sax ay xol yuy tooy donc il faut que ñu def suñu kéem kattan ba hôpitaux yi tamit. lii di cadre de vie bi maa ngi ko doon wax léegi directeur bi ñu jëm ci euh, góorgóorlu ba malade bu fi ñëw wala am tamit euh, mbokkam buy ñëw di visiter au moins seen xel mën a dal parce que hôpital mënuñu dugg ci hôpital euh, ngeen jégal ma ci kàddu yi hôpital bi di ñiroo leneen ginnaaw hôpital. donc avec le maire tamit de Fass Colobane Gueule Tapée que je salue au passage di ko jaajëfee tamit ci effort yu muy consentir mooy góor góorlu ba mën a aménager benn parking. ci hôpital Abass ndaw de préférence mu nekk benn parking hors de l'hôpital parce que ay ambulance yu fi naru dugg di nekk ci ay emboutage embouteillage ak ñoom seen wax dëgg yàlla loolu mën a ñàkk ci hôpital bu ci des tamit mooy sàkku ci mbokk yi ñu ànd ak discipline ak civisme parce que euh, citoyen suy yeewu ci dëkk moom rek mën a góorgóorlu ba lii di citoyenneté mu mën nekk benn réalité donc euh, ñu ngi ñaax ku nekk ci mbokk yi daal dañuy góorgóorlu ba suñuy fréquenter ay structures yu mel nii euh, ñu góorgóorlu ba bañ sànni fi ay mbalit wala bañ a dugg fii di gaare nu mu leen neexee wala di am yenn comportement yu mën a impacter sur le bon fonctionnement et la bonne image des des hôpitaux particulièrement de l'hôpital Abass Ndao Oui, je suis venu aujourd'hui pour m'enquérir euh, de l'avancement des travaux du chantier de, euh, du projet euh, dénommé Euh, pôle euh, mère-enfant. Je pense que maintenant, ils ont souhaité changer l'appellation, donc pôle parent-enfant. C'est-à-dire que maintenant, les euh, pères de famille devront aussi euh, jouer pleinement leur rôle. Et euh, nous sommes venus donc constater euh, l'évolution de ce chantier. Je rappelle qu'il y a quelques mois de cela, j'étais venu pour la pose de la première pierre. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes plus ou moins satisfaits, mais nous avons tout de même souhaité à ce que Euh, le chantier soit accéléré. Parce que, comme vous le savez aujourd'hui, je pense qu'à l'exception de Principal, de l'hôpital de Fan avec Albert Royer, euh, c'est Abbas aujourd'hui qui pourra accueillir un pôle euh, mère-enfant. Et par la grâce de Dieu, ce sera le plus grand pôle mère-enfant du Sénégal. Et euh, ce que je voulais aussi dire, en plus de cela, nous avons euh, souhaité euh, rappeler que lors de la campagne, on avait mis l'accent sur l'humain. Donc euh, ce projet rentre euh, dans le cadre de cette promesse de campagne, c'est de valoriser euh, le capital humain. Donc je voudrais aussi rajouter que la ville de Dakar s'est engagée à mettre à la disposition de l'hôpital Abbas Ndao un IRM pour un montant de 1 milliard 300 millions et le nécessaire a déjà été fait. Donc euh, sous peu, l'hôpital Abbas Nord sera doté d'un IRM moderne. Pour ce projet, nous sommes à un peu moins de millions. Et euh, nous voulons aujourd'hui permettre à Dakar de pouvoir euh, avoir une plateforme qui puisse euh, accueillir euh, les nouveaux-nés, une plateforme de dernière génération dans un bâtiment euh, neuf. Donc euh, je le répète encore, l'unité néonatale d'Abbas Ndao sera la plus grande unité du Sénégal au, à la grande satisfaction des populations dakaroises. Et je souhaiterais aussi, en collaboration avec le directeur de l'hôpital Abbas Ndao, qu'on fasse de notre mieux pour euh, euh, construire un cadre de vie beaucoup plus accueillant, beaucoup plus attractif euh, pour euh, d'abord les malades, mais aussi euh, les visiteurs. Donc euh, j'espère que nous pourrons réceptionner cette unité néonatale au plus tard en fin janvier. Elle sera, Inch'Allah, aussi équipée. Et le marché aussi pour le matériel d'équipement Euh, sera lancé d'ici euh, quelques semaines. Et euh, j'espère que ça sera un bon vieux souvenir pour certaines populations dakaroises qui rencontrent beaucoup de difficultés et d'obstacles, surtout en matière d'unité néonatale. Euh, actuellement, je pense qu'on part sur une capacité d'après trentaine de bébés. Mais je pense que le directeur de l'hôpital euh, pourra revenir plus en détail. Ah, on vient de me souffler derrière 40. Donc euh, actuellement, la ville de Dakar euh, est très préoccupée par euh, la finition de ce chantier. Et juste après ici, je vais normalement visiter le chantier du centre de dialyse de Liberté 6. Et comme vous le savez, depuis la fermeture de l'hôpital de Dantec, les dialysés à Dakar souffrent énormément. Et euh, je tends la main aussi à l'État central par le biais du ministère de la Santé pour qu'on essaie de voir ensemble comment faire en sorte que Dakar puisse relever son plateau sanitaire à la grande satisfaction des populations euh, dakaroises en particulier et sénégalaises en général qui des fois sont obligées de venir euh, vers la capitale pour pouvoir bénéficier euh, d'un plateau sanitaire acceptable.